lu bees tax lu bees tax lu bees tax. la lu bees la yóbbu fi indi eh bi dina bi dina xam nga nu muy demee neex xam nga nu muy demee seex ci kër gi ak awa góoru këram dëgg doom bi ci kër gi di jaay dafa wóor si bu mu gisee xale bi loolu doy na waar eh bu mu gisee xaritu askan la. ngalam xaritu as la. xaritu askan la. moom ngalam xaritu as la. bërëb xaritu baay taxaar. mati seen jigéen. yaay booy. jàppal ma benn kii bi tudd. Eh, foofu lu fa xew. Eh, xanaa booru famille bi. Bonjour, ça va? Nice. doon laaj sama njaay dana bëgg nga woo nga def ma ko. Puis, ay allahumma laq si moom. ni ma ko asalaatu xayri ma naan noom gën a leer. ma nangu ko doo bëgg a ndogu. Thank moo namul moo la ko wax. soo eggee ne ko na dem rëbb ji ay simbax soo ñëwee nu toog ko ndox. ii. bu ñëwee yàq ko. kii moo baax kii naa am. yéen a war a parce que ñu ngi comprendre sama sama bopp. ak réunion yi ngeen war a def yëpp ba nga xam. ay sa ndax loolu mooy lan sama yaay moo la wax loolu. non. mais wuy ma. lu bees tax lu bees tax. yow ku fi indi lu bees tax. ndax xam naa ne moom jël nañ deuxième moom deuxième waaye premier rek. waaye soo wax yooyu waaye yaa ngi sànni xeer. ah xam nga daal dem naan dellusi moom waaye ndox sa juróom. Eh, ah. xam nga li gën a bon de moom mooy léemu waale léemu waale. ay yaay moom naan si kawe si néew la. allahuma laq si moom. ayca ayca moo ko solo naan deuxième nag da ngay yor ñaari kaas eh, ah, ay lii. waaw bàyyi noonu ma la ko taamu doo mu nekk sax di ko taamu. ah ay a pare nga ay wax wax ak téléphone bi. yow xam naa ne moom sa yaay. ñu ngi doon toppatoo sa baax. Ah! too na ko de am na ngërëm billaahi làq na ngërëm waaye am na si jéeg ji bees ji di sëy. boo ko nu guddi boo ko nu bëccëg. nan dem rek. jéeg joo xam ne mbéj naa sax leen gën si kër. kenn. yow yaa am bu jéeg ji baax sa tànk woo na mu dosee laa dama lay lekk. maam la ci yow baal bu dee wax nga jël. dama lay lekk. démb fii démb fii laa ko fii muy fóonante si mbedd mi. di fóonante ak gone googu noonu xam nga téléphone la xam nga lu mu doon. fii daa lay dem ah, di fóonante. ah li gis mag ñi di ko def nag li gis mag ñi di ko def kenn noo ko def. dëgg yàlla ay xale nekk nga xale yi loolu toppante ak ñoom quoi. Birame moom daf ñu xëy ko wóor ki xaj na ko comprendre mais man xam naa ko. c'est que li muy def nii nag mën na leen a déranger quoi. amul problème après lépp dinaa la ni xas nga ne xaj xajaar moom deuxième doo ko mas a premier bi sa ngay dee demal rek. doon lekk mburu du ma lekk mburu. xam nga xool ngay comprendre li ma la wax nii léegi parce que kii nu man demee sama njaare nit ku ne am nga ko mën a rusé rusé leen moo ko rek man lépp dinaa ko seere li ma la waxoon keroog weeru koor yàggul bisee ñëw mu jékki-jékki dem yoonam comprendre leen rek demoon xaaral ma ñëw julli tamit saa ko lay dégg après jëlaat leen sama téléphone bi. foofu daan na neex